salaamaaleykum sama gars yi daleen ak jàmm ci Sope Farokh TV fii ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné bu leen fàtte bés cloche notification bi ngeen mën a jot bépp vidéo boo xam ne dañ ko dugal fii ci biir réew mi ak bitim réew jërë ngeen jëf siyaare tur bi naka la Serif Cissé Porsche Kër Ayib fédération Rip Sa Bakhaw Sandial waa soppi Farokh TV ñoo lay laaj si siyaare bi tabarakallah ñu ngi leen di bégee nañ leen daan bégee siyaare bi daal euh, ñëw nañ ci niñ ci daan ñëwee ak mbooloo moo xam fa tabarakallah mooy euh, ñi nga xam ne ñoo seen bopp bokk ci kër Mawlana Cheikh Sila Jamono mooy Rip ak Sa ak kon ñu on kanam kanam kanam kanam itam mhm. dama wax ne ba léegi ah. ñun ñu ngi am àllarba ak déebéer àllarba ji ba Baye Bass déebér ji mooy suñu siyaare siyaare bi nag jaral nañu lépp ndax si laajo man la moo ñu wax ne yantafiu taaliba bil madloob bi qadri rafaxi sayqi bil quloob ñun nag moo tax jox nañ ko suñu xol yi jox ko suñu alal yi jaral nañu lépp fa tabaarakallaahu ana sëñ Abdourahmane moom mu ci gannaaw asalaamaaleykum wa rahmatulah soppi ñoo lay nuyu di la siyaare yéen ñi nga xam ne tey yéen a fi des di muqadam si kër gi ñu leen di siyaare di leen laaj bés bi rek lan nga ci ñaax xale yi. fédération Rip Sabakh Sandial góor gi yow noo tudd usmaan Mbaye usmaan Mbaye mu ne kanaa xale yi nañ góorgóorlu rek mu ne góorgóorlu lu am solo la mu ne mu ne nit lépp loo xam ne nekk na ko bu si di si liggéey na ko dëggul mu ne te xam si faayida nag mu ne lépp loo xam ne ngëm nga ko da ko xeeb waaye nga ko ne ngéej jàpp jàpp si ba mu dëgër lépp loo xam ne nit ma ngi koy def. mu mu ngi wax jërëgeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. di kontaan si groupe Rip Sabakh Sandial. Rip Sabakh Sandial ah yéen a ngi daaru léegi. ñu ngi daaru salaam incha allah xëcc nañ ci jàmm ak salaam. mu ne na nañ ci jàmm ak salaam ñu ngi daaru salaam. waaw ñu ngi nuyu waa daaru salaam. mu ne ñu ngi nuyu waa daaru salaam. di yeesal suñu bi nag. Siara bi ñëpp dañ kontaan mu siara bi ñëpp dañ kontaan insha allah mu ne allah ndax li mu ndax lii dañ ko def ngir yalla. dañ ko def ngir yalla. ak jëmmi ala ma ndaw ak mau mawla ye sey laaji ma ndaw ak njabootam ak njaboot gi bon luñ ci def mu ne kon luñ ci def Yalla dina ko gërëm mu ne loolu yàlla dina ko gërëm ndek khalifa bi fi nek. ne khalifa bi fi nek. ku ku jafe ci jamono mu khalifa bi ku jafe ci jamono ndax tey boo xoolee mu ne ndax tey bo xoolee khalifa boo xam ne khalifa dara musukor takajok. dara musukor koy tax a jóg. lu dul yàlla ak yonent lu dul yàlla ak rasulullah ak Cheikh na Ahmed Tidiane ak Cheikh na Ahmed Tidiane ak jëmmi baayam ak jëmmi baayam ak ak ak ak ndigalal eh, way juróom ak ndigalal way juróom kon ñu ngi sant yàlla bu baax mu ne kon ñu ngi sant bu baax a baax boo xoolee convoi bi mu ne boo xoolee convoi bi nga xam ne lii de mu da nga xam ne lii yombu de convoi ripp sabax sandial mu ne boo xoolee lii ripp sabax sandial mu ne ripp sabax sandial ak pakala ak pakala ñoo ne nii mu ne ñoo nekk nii convoi bi yombu de mu ne convoi bi yombul de ku bëgg sa ku bëggul sa sëriñ mu wut a sëriñ manu loolu le koo xooluwut sa sëriñ mu ne koo xooluwut sa sëriñ manu loolu sa sëriñ manu dara it manu lii mu ko sa sëriñ manu dara it manu lii lii ñu ngi koy sante yàlla mu a ñu koy sante yàlla di ko di ko gërëmee yàlla di ko gërëmee yàlla bi mu ñu booleeg alaaji ma bi mu ñu booleeg si alaaji ma ndaw yàlla booleeg bi mu ñu booleeg yàlla booleeg bi ñu booleeg suñu ma ndaw amul sa xol sedd na sa xol sedd na boo ko gisee boo ko gis boo ko gisee ak boo ko gisul boo dikkee boo dikkut boo dikkee boo dikkut lii boo ko déggee Uh, Sopp Faro Sopp Faro TV mën a amu leen morom jërë ngeen leen morom jërë ngeen jëf leen da sant di leen gërëm di leen ñaan jërëjëf ana sëñ Abdourahmane yokkute Abdourahmane mu ngi si yoon waaw kenn siyaare waaw di nan nan ngeen gisee bés bi waaw sant rek ak seen kontaan fan la toll baax sax kontaan kay romb nañ kontaan romb mu ngeen kontaan sant bu baax jëmm ji ngeen koy defal waaw jëmm ji Alaaji Mandaw xulbu rax sam gërëm nañ ko baax sant nañ gërëm bu baax kontaan bu baax nag kontaan bu baax sëñ bi siyaar nañ la bu wér wér jaañ kontaan nañ trop waaw ren moom yëf alhamdulillah yàlla ya fayal ñu alaaji Mandaw rek fayal ñu taalibe yëpp dako wa taala képp koo xam ne xamante nga alaaji Mandaw rek xam nga ko rëy alaaji Mandaw amul ñaareel kenn la man alaaji Mandaw maa ko bëgg bëgg ba alaaji Mandaw boo xëyee tudd ko tax lépp loola jaaxal dañ ñu lépp loola jaaxal rek dañ ñu ndaw ñeeg jigéen ñeeg góor ñi ñëpp ko bëgg man de bañ naa ko ba lépp lu maa liggéey alaaji guru la jaay de man de mam jee Touré la fan nga yow kan mot kaan kan moot kaan waaye sama pagne bu ma dajja la jox ma ndaw la ko tudd moom nga ko te gisuma ca ben bo xamne bi reccu na amul benn loo si réccu xam nga lenn lu ma ci réccu kon man alaa jox ma ndaw man dama ko beug sama bop yanni yalla fayal ala jox ma ndaw te yanni yalla yàlla a fayal alaa jox ma ndaw yal nañu yàlla may kattan wa na ñun suñ lii moom tey ah. alaa daw me na rafet na

di doon koo xam ne képp koo xam ne nii siyaare nga ko mooy taxe nga àdduna taxe nga àllaaxira ndax ni euh, euh, mbiram mel looloo tax euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci bés bi ñëw ni tey. góor maa ngi leen di ziare Kër Sët Jaxu Kër Sët Jaxu na fi la fi waaw yéen fu ngeen toll si mbir waaw ñu ngi ci góorgóorlu rek wax dëgg yàlla ala yoman ndaw moom kenn mënta wax ay mbiram waaye ñu ngi ci ay mbiram waaye ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñuy bi ñu yàlla booleeg moom Maolana Seydi ala yoman ndaw waaw ñu yëpp bi ñu yàlla booleeg moom ñu sant bu baax di gërëm bu baax dëgg yàlla

di la laaj yow na tudd. man Babou Mank laa tudd. ba dëkk fan. kër Babou Fadi. kër Babou loo xam si bi ak loo si ñaax xale yi. ah rek. góorgóorlu rek. fonk ko lool. te fonk ko lool. waaw nga jëmm ju tedd man nga gis naa ko de. sëñ Umar Ndaw. Ah, waaw naa ak moom de. léeg kii. foofu yéen dafoo ñu fóot ko ma da ko gis. naa ko de. gis ah, bu wér sax. bu ah. loo si ñaax nañ góorgóorlu rek di jàppante waaw te xaatante rek xaatante rek waaw bu kenn yox yoxi bu kenn yox yoxi waaw jërëjëf jërëjëf kontaan contane waw ñu lay nuyu dila siaré dila wax na bés bi ak señ bi ak lu la assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ah, ñu ngi leen siaré ci bis bu tedd bi lay ah ndax bis bi mom bis bu rafet la ndax Cheikh Seydi El Hadji Mandaw koko koko gis war nga xam nga nit ko nit ko nitu deug la nda dañ day wax ne ko ko ko xam wal nga bëgg ko liggéeyal nanga dox man nga dox mom tanki weñ bam jeex ngir nga ngir nga xam ko ngir nga xam ko wal nga liggéeyal ko cheikh cheikh dañu mëna jarnok na cheikh alaji mamadou bachir ko ñu nga sant yalla ci bis bi la yeneen alaykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sama gaay yi da leen ak jàmm ci sopp farox TV ñu ngi leen ñaan ngeen abonné wu bu leen fatte bes cloche notification bi ngeen ngeen mëna a jot bépp vidéo bo xam dañ ko duggal fi ci bir réew mi ak bitim réew jërë ngeen